Thank you. aywa asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xàq ci tabaski gin jege di leen baal xàq di ñaan yàlla mu boole ñu jéggal ñaan yàlla ñu yàgg koo teewe te mu yàgg ñoo nangul yàlla mën na ko te wàññiwu ko dara yàlla na ko def bi jaahi sayyidina muhammad rasulullah sallallahu ñu yàgg koo teewe ñu ñëw tey ci ñaar benn bi mag ñu tudde ko kii mu yaaw dalaayilul xayraat ñu ne yàlla dogal na fanweeri góor yi yàlla jarbu nan ko te ñoom ñëpp benn kàddu gu lan am lan wax mooy lu dëggula lu wér la waye guddi ba guddi lañ koy liggéey ginnaaw ge duñ ko liggéey benen waxtu budul bobu bo jullee ge ba pare ya xam nak heure bi nga julli ge nga def astaghfirullah sa allahumma salli ala al mawsufi bil karami wal judi waxuma bil judi wal karami de bil karami wal judi 1871 1871 boo jëlee adadu salaatu bi allahuma bi jar de allahuma salli alal mawsuufi bil karami wal juudi da jox 872 hmm? boo ci yokkee rafiu darajaati 999 mu jox la soixante kon lim bi nga koy liggéey mille huit cent soixante onze allahumma salli alal mawsuufi bil karami wal la boo ko xisaabee boo ci yokkee rafiu darajaati neuf cent mu jox la mille huit cent soixante def benn soixante-dix mille mu indi ajib lii yaa mahaya ma ilu maha maya maha ya ma ilu maha ya ma ilu maha ya ma ilu téeméer yaa fattaaxu yaa razaqu yaa kaafi yaa xanu yaa wahabu yaa sa tawli cent trente et un allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala sayyidina muhammadin wa sallim trois ajib li fi kulli makanin temer. nga jek dem sa yoon soko bayiwul la wax de sax ci funi limé ñu gëna ris ci monde bi dañ la tudd sa mom waxatumako bo fa nekkul premier mom xona ko la fa jitu ci liggéey bi ko la jitu ci liggéey mo lay ba bu fekkee ne da ngay bëgg bëgg mu xaw a guddi xam nga gee ñun ñoo koy utal heure daanaka mag timis une heure de temps mais weesu na loolu waaw weesu na loolu bu la neexee mën nga dem ba minuit man lu ci ëpp en général ay dix heures dix heures et demi jëm onze heures laa julli nga xam ne damay julli rek safa wi te tëdd du ma ci teg leneen waaw wala su ma koy liggéey ma liggéey ko jamono ji ma koy liggéey mën na laa jëlal une heure de temps boobu man ci li ma calculé une heure de temps yen saa yi muy teg une heure cinq minutes boo xawee yéex. waaye soo miinee lii parce que lii li koy waral mooy tam nga juum tam nga indi allahuma salli alal mawsuufi bil juudi wal karami <laughs> première fois bi dem naa ci lu yàgg yàgg mooy remarqué na kon ni ma koy jànge noonu ma dellu si waat allahuma salli alal mawsuufi bil karami wal juudi 1871 moom rek moo ca xaw a ah. bu bii jàll rek si des jeex na ajib li yaa maxa ya maa ilu 100 yaa fataaxu yaa razaaku yaa kaafi yaa xani yaa wahab yaa za tawli 131 fois allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammadin wa sallim 313 ajib lii fii kulli makaanin 100 nga dem sa yoon nga sax ci nag chaque guddi chaque guddi bala ngay tëdd nga liggéey ko soo ko bàyyiwul laa wax xaw ma nag ki bàyyi mais boo bàyyiwul luy nekk ci sa problème dootul nekk alal ci àdduna bañ ka ba yàlla bu lay boole da lay boole boolem alal la lay booleel moom li néew li wërta wër moom boo ko bàyyiwul bu nangoo chaque jour moom xaalis dina dugg sa loxo ah aha bon man nag ni ma ko jëlee mooy chaque guddi noonu lan ma ko jàngalee chaque guddi chaque jour chaque guddi chaque jour fii kulli laylatin chaque jour baada salaatul ishaa yi chaque jour chaque nuit chaque nuit kulli yawmin chaque nuit moom kay boo mënul rek chaque nuit lan wax chaque nuit guddi gu ne waaw bu fekkee ne feebaroo dara tënku la guddi gu ne waaw moo tax bu fekkee nag yàlla dogal xëy na ah, doo am jot bi ah xam-xam moom yaatu na ya xam-xam yaatu na bu fekkee ne doo ko mën chaque nuit ah nga seet jour yu la enrangé moo xam nga def une semaine waaye nag bi ma mën a assuré man daal te ma xam ne wax dëgg yàlla léegi sax nag génn naa ci nag ndax sirru bi moom boo koy bàyyi wala bu lay bàyyi doo ko tey doo ko yëg toog naa trois jours yoo xam ne laalu ma ko fii may wax ak yi ñetti fan te xamul lan moo ma ko tere nag de dama julli gee fàtte ko lem sama bagage dem tëdd ba yeewu fajar ne waa man mbir mi daf ma ko biig de waaw yombul nag neexut a maîtriser kon bu la yàlla mayee loolu tamit baax na boo ko mënee chaque semaine mois bu ne nga def ko une semaine yu njëkk ya ba tey xam lu ci am solo na yàlla nangu rek am na ñoo xam ne da leen di jox liggéeyu un mois ñu liggéey ko benn fan yàlla may leen ci ijaaba am ñoo xam ne da nga naan un mois ñu liggéey quarante ans gis dara parce que loolu tamit nit ñi dañ ci wuute gis nga ni ni wuute heure yi ñuy juddu noonu lañ wuute ijaaba ci ci yàlla heure yi da cey compter dañuy wax né en général ku juddu ku yalla dogal nga judd fa judd fajar koku mom musa jaaba lay doon doa doa bu mu ñaan yalla yalla nanguko lepp ci fajar gi ku yalla dogal nga judd 2 heures judd waxtu tisbaar mom ala kulli hal soxlul bayre bu ko takal bayre <laughs> koku mom soxlul bayre bàyyi koog nit ñi ala kulli hal ku siw lay doon ku siw lay doon amna ci nak ño xamna timi ci sen sel ak sen jaamu yalla dépendre ci heure waaye seen sell ak seen jaamu yàlla am na ñoo xam ne sax du seen jaamu yàlla mais yàlla moo leen sellal am na ñoo xam ne yàlla moo leen sellal boppam da nga leen di gis nii teg leen ay zahir fekk na ñoo la gën a set fuuf ñoo la gën a àgg ci yàlla yàlla daal ki mbiram ak la muy def yow daal dawalal sa a rek liggéey mën nga liggéey benn yoon sax yàlla nangu waaw man kurti kurti naa ci ba am ci defe naa semaine waaw tey su ma waye gis nga ñetti fa a ngi dama ragal ne ciona tabaski gi ma do xarmi nak de ciona gi wa do xarmi ciona gi la ragal ne xeyna moma japp ba ñetti guddi yi ma tepp ko mais li ci ëpp solo moy nga def ko rek taabudan lillah def ko ngir jaamoo ko yàlla première fois bi ngay def rek yalla na ndax yalla du du du du nun koy waxate du weddi bopam du wor bopam mo ni ñu ñaan leen ma may leen idoo laaha wa antum muqinuuna bil ijaaba loolu sala salama wax ñaan yàlla te ngeen gëm na yàlla nangu na xam nga mag ñi boo gisee ñu la ci yàggloo ruux dafa am solo ci doomu aadama ndax moom mooy sël élément bi nekk ci doomu aadama bu connecté ak yàlla te ruux nag zikkar moo koy dundal ak ñi ma xiif léegi mag ñi pour ñu tett la nga dellu ci yàlla lan lay miin loo zikkar moo waral sunu yenn bokk tarixa yi boo demee ñu tarbiyu la raxas ruux gi tàggale ruux gi ak nafsu bi boo tarbiyoo ba mat nafsu mënatul sa bakkan dara boobaa ruux gi mooy dund mooy ëpp doole mooy dominer loolu day am am na ci yenn tarixa yoo xam ne boo fa demee dañ lay tarbiyoo jox la ko nombre de jours jox la turu yàlla yooyu zikkar waaw di la contrôler nag di la contrôler foo toll même am na ci sëriñ soo xam ne même bu la joxe salaatul fatix yi ñu ngi lay contrôler waaw parce que salaatul fatix yi day yéegal nit waaw ñu ngi lay contrôler loo ci toll foo ci mënti am xam nañ ko waaw loolu day am ci nit ñi ndax ruux googu mooy màggal nit ñi moo mag ñi des fois di la saxloo ci benn tur ngir nga bañ a fàtte yàlla ala bi zikrillaahi tasdaadu zunub waaw ala bi zikrillaahi zunub wax kay waay soo demee ba fàtte yàlla bañu lay fàtte yàlla bàkkaar gënu ko weesu ala bi zikrillah nga dem bay fatlikou yalla yalla mi bind nga fatte ko bokay fatlikou fàttaliku gënu ko reuy bokkul ak batay nak ala bi zikrillah tatmainul qulub ki ci sax dekk ci jegewu fa koku la yalla may xol bu dal mais ki dem ba fatte ban koy rappelé wu bakar wessu loolu ma da ba dem ci ahlut tasawuf ñoo la koy jangal ala bi zikrillah zunub nga nga dem ba fatte sa borom ba lay rappelé à l'ordre koku wessu ko moo tax nit ki lu mu néew néew néew war na am gannaaw julli yi lu muy def moog yàlla moog boromam def ko ta abudan lillahi diggante moog boromam di ko jaamoo yàlla waaw am na ñoo xam ne tey boo leen joxeen fatiha bii ñu xeeb ko waaw te fatiha nit ñaa ngi koy jàng waaye kenn bokku ci ak sa morom dëgër bi nga ci am ndax ke xam ne faatixatul kitaab boo commencé ci alhamdulilahi rabil alamin cent vingt quatre xuruuf la mu xam loolu xam ne baat ñaar fukk ñeent la muy vingt quatre mots di sept versets di quarante cinq points di quatre vingt dix neuf masque ki xam loolu di jàng faatixa ak ki xamul loolu di jàng faatixa duñ benn la ñuy am ci faatixa yi du benn ah? da ngeen li ma wax kay waay xam nga cent vingt 124 plus 24 plus 7 plus 45 plus 99 daf lay jox 299 soo dindee article bi mu jox la lii moo tax mag ne li ci faatax yëpp mi ngi ci basmala mais ki xam loolu taxaw di jàng faatixa ak ki xamul loolu di jàng faatixa bokk ñu yem parce que yow sa faatixa li nga ci xam ke xamu ko ci loolu di ñi rawante tey ñu bëri tey boo leen woon Fatiha ñaata masque la mënuñu la ko wax ñaata tomb nekk ci Fatiha hmm? <laughs> ah <laughs> waaw dafa jar bàyyi xel dafa jar a bàyyi xel loolu nag ci secret yu say soxaan yooyu ci biir Alxuraan ci la yàlla du ubbee waaw ci la yàlla ubbee ah pour muy leer gis nga yooyu secret yooyu nga xam noonu ci la yàlla du ubbee ci ngay xam yenn yi waaw moo tax mag ñi dañ naan li ci ginnaaw téere yi. wa bu fekke comprendre nga li ci ginnaw téré yi xam nga lolu pour nga gis ko lako jangal problème la mais bu la yalla baxé ba nga tek fatiha nga commencé ci alhamdulilah rabbil alamin nga wàññi lettre yëpp muy 124 nga la wa ah 124 wa léegi badi yi rabbil alamin arrahman arrahim nga dem ba mu jeex mu jox la 24 24 heures 7 verset les 7 semaines nga ñëw ci 45 tombe mu jox la adama nga ñëw ci masque yëpp mu jox la 99 asma allah husna yu dugg nga dajale lépp mu jox la deux cent quatre vingt dix neuf soo dindee article bii rahmaani bii égal deux cent quatre vingt dix neuf waaw ki xam loolu ak ki xamul loolu ah <laughs> ah déedéet du benn laay sawili si ne yàlla mun na <laughs> mu ngoog mu ngoog mu ngoog waaw loolu day baax ci léegi nag comme yéen xam ngeen ko seen fatiha day gën a dosé jox naa leen nag ndëwénal bu rëy sax aywa ñu ñëw ci les morts du célibataire de morts vivants les morts vivants ñi nga xam ne jëkkër tëna leen wala jabar ngeen baal ma nag waaw ngeen baal ma <laughs> maanaam ah, sama benn góor moom ko doon wax mais jamono jooju maa ngi célibataire góor gu neex sax la ngay rey buy bëgg a dee ñu présenté ma ko ma ñëw ci moom ñu présenté ma ko man ma am nga jabar ma ne ko déedéet man ma ah yow mort vivant mané ko lan moy mort vivant mo le ma da ngay dund rek may dé nga bu yag parce que amu jabar rek mort vivant nga né lañu am benn ñoy célibataire wa ya. parce que sen jabar da leen di yàpp des fois ñu dugg lolo ci wañ bi des fois ñu fa wéré lolo des fois mi ngi non dal mais bo amé ñaar nak ñu wor na ñom bu dul ñom di kenen changement daal di am waaye nak ah buñ melni aline Sall de aline Sall mom jambar la man né na ko mel mané yow sama benn bi dal bàyyi leen ma ci ba ci kanam bisu alxames lañ ko bind comme tey boo xëyee nga bind alam nasrah juróom-ñaari yoon wa zayyannaahaa na juróom-ñaari yoon qaala Muusaa maa ji'tum bihi sihru ba ci walaw karihal mujrimuuna ah juróom-ñaari yoon wa azin fi nnaasi bil yaatuuka rijalan wala kulli daamirin yaatiina min kulli fajjin amiqin li yashhadu manafia lahum juróom-ñaari yoon léegi nag la ko tënkoon ko tënkoon ba munta am jabar in xallat ndax am na ñu bëri ñoo xam ne du seen yambar de ñàkk ñu yi waaye àndandoo ngi seen wet wala liggéey gun leen liggéey goo xam ne pour ñu dugg néegu sëy day yéex am naa ci benn client boo xam ne benn bon du ma àgg sax ci détails yi mais dañ ko tënku woon na ko yow loolu la ko ndaw si wax fekk maa ngi dund doo déggal xayri mu dema dem ba xaw a âgé xaw a gëm mbir yi ma ne ko ah bon xanaa da ngay weddi yàlla mu ne ma déedéet ma ko ñëwal kër ga ñëw fa ma defal ko ko mooy de quarante jours yàlla may na ko borom kër waaw da koy tekki li ko tënkoon ba mënut ta am jabar wala mënut góor a jigéen nag da ci yem nag de. sirru bi góor ak jigéen la bu leen yaakaar na jigéen ñi kese la góor ak jigéen li ko tënkoon mun munta am jëkkër wala mun munta am jabar bu dee fii da nga indi turu ku jigéen ki ak turu yaayam bu dee ku góor nga indi turam ak turu yaayam bi xàq qul bi falaq bu la neexee nga eggale ko saar bi nga eggale ko nga indi ba bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ci téere ci këyit nga bind ko teg ko teg ko nii nga jàkkaarloo moom nga jàng yaa ayyuha allazina amanu la takunu kallazina azaw muusa fa barra'ahu llahu mimma qaalu wa kaana indallahi wajihan bii nga jàng ko ci feu bi quarante cinq fois nga lem téere boobu jox ko mu takk incha allah rabbi ci kàttanu yàlla bala muy def quarante jours ñu ko ci kàttanu yàlla muy def quarante jours incha allah rabi nañ ko muur wala ñu muri ko <laughs> ni ko gaañi waxee wala boog ñu muural ko li wërta wër mooy bu dee góor yàlla dina ko may soxna bu dee jigéen yàlla dina ko may boroom kër ndax en général rab da koy def nit ki day ñëw dina dem mën na ñëw sabat say parent wax ba lépp sotti ba da nga ne bis bu ñëwee rek mu jekki-jekki dootoo ko dégg dootoo ko gis doo xam lu xew wala mu mel ne sax mosulaa xam pourtant bañul de dafa am lu dox ci digënté bi té nak ah sama jigéen ñu baal ma pour lolu top leen day yomb parce que des fois cholin gi ah des fois cholin gi lan lay top, des fois man la nekk juddu man la nekk juddu ndax dafa am réalité yo xamné ñun africain ñu ko wéddi parce que c'est pas possible boo ko weddee gaañu dëgg la julit nga lislaam xaraamal na ko waaye nag defal say ñaan ci lumière muy alxuraan ngir yàlla dimbali la ci ñooñu soo ko deful problème mën na taxaw dafa mës a dégg Cheikh Tidiane Sy radiyallahu taala anhu muy ci biir waxtaanam mu ne dafa am benn xaritam boo xam ne entrepreneur la woon yor xaalis bu bëri macha allah mën ci lépp nan nak mu gëj koo gis ba bis mu gis ko nim ko gisse xamna na nam melone ak nim mel legui du ben parce gis na ne waji dal daal problème jafé jafe yi na mu wa diw lu xew mu ma dal dama dal bu suuf wa lu xew mu man comprendre wu mun ma xam lu ko waral mu ah ba sàgg na sa bop mu ne ko melni ah, dafa la de parce que dal lepp lu ma sama yaay ma sa indil ci ñaan musuma ko gëm musuma sey jëfëndiko ben ba fi may wax ak yow day bokk ci lu lay ñaareel ba fii ñun kese dëkkuñu fi am na yeneen être yu ñu fi jiitu woon avant ñun te ñu ngi fi ñun dañuy ñëw di nangu seen kër yi parce que ñoom yi bëgguñu ko xumbaay yi bëgguñu ko da ngay nangu sa kër wala nga fekk ko bërëb bu mu nekk nga nangu ko kooku du bàyyi man la topp topp sa njaboot su fa fekkul alxuraan ju wér pëng bu la ci mën a protéger mën na la gaañ wala mu top sa njaboot. waaw tënk leen ci yenn réussite yi nga xam ne duñ ko mën a réussir su ko defee da ngay indi alxuraan yàlla dimbali li ci ndax ñoom attanuñu leer bu dee jullit bi ñemewul leer gi bu dee yéeféer bi attanu ko kon day deñ mooy indi baat bi lépp lu ko tënkoon lu ko doon teree dugal ci néegu sëy ci kàttu yàlla day dañ ci kaw bu yàlla dogale ci moom ne war na am borom kër ndax dañuy wax ne bi yàlla bindee ruux yi ca alamul arwaax nee na dafa jël ruux yëpp mi ngi mel ne rek nga taxaw ci benn fu kawee rek daal ji saako ceeb rek juutal gis nga ni pepp yi tuuroo tararararara di laalante ruux gu laalanteeg sa moroom di ngeen sëy fii ci àdduna waaw ruux gu laalanteeg sa moroom faaw ala kulli xaalin ngeen sëy ci àdduna ruux bu laalu sa moroom nag du ngeen sëy ilaa yawmil xiyaamati ci biir ruux yooyu tamit am na ñu ci wànnante boo ci wanee ñeenti ruux di nga am ñeenti doom ci àdduna bala ngay gaanu bu fekkee wañ noo kenn nag mën nga takk juróom-ñeent fukki jabar doo am doom parce que wannoo benn ruux dara benn ruux buy génn ci yow amatul waaw moo tax ñuy maanu yenn saay ci ni xale yu juddoo nañ ci maanu tuuti dëgg la l'islam yenn yi waaye ñu ànd ceeg maanute ndax buur yàlla mooy dogal buur yàlla mooy dogal c'est pas parce que xalé bu jigen bi amna dom or mariage rek dafa bon dedet c'est pas parce que goor ke def nako rek dafa bon dedet yalla dako haramal te ñun ñëpp ñu ngi def lu yalla haramal te ken taxawul jiser ñu nan bayyi ñoñok yalla ay jaamu yalla lan ay njabotu yalla lan waye nak ñu ñaan yalla mu bañ ñu dal ndax day gakal der ñaan yalla mu baña dal suñu njabot ndax day gakal der mais bakar mom doomu ci mucc kenn kese kese dong kese moo ci mucc muy sallallahu alayhi wa sallam moom moo xam sama sëriñ ak Cheikh Tidiane Chérif ak ñëpp ci yem ku ci yàlla topp wala ci ruq ba nga jëm yàlla lay njéggal dugal la aljanna ñëpp nag laa wax de sans exception bu weesoo sallallahu alayhi moo tax mag ñëpp ci moom lan wékku pour sauvetage Cheikh Tidiane Chérif ak El Hadji Malick ak Cheikh Ahmadou Bamba ñëpp rasulullahi moo wasila pour mën a rëcc waaw asamaan nag ñun ñi nga xamne amuñu dara wuñu fenn waaw kon ñu doon ko ci sóoraale nga ñaan yalla yalla mëna ko dindi ci katanam nee dal ku ko jëfëndiko 40 jours seyo xamal na yalla dogalul ci yow mariage waaw mais modine, wër modi di ne même ki la wara tak bu nekkon ba end sax yalla dina ko indi ba Sénégal mo tak la ngeen sey bu ngeen ci wara am doom ngeen ci am doom so ngeen defaat ngeen doga faatu la mu defoon ci aadama ak xawa jël xawa sànni màkk jël aadama sànni ind aadama doxa doxa dox ba tànk yi dagg xar di nàcc waaw awa dox ba tànk yi neewi ñu daje yawmul arafa bii ngay dégg le jour de la rencontre foofu lan dajee aadama ne ko waaye man de maa ngi jógee ind dox na bay bëgg a dee awa ne ko ah man de fi ma yàlla wàcce woon jógee gumu fi te moom tànk yaa ngi neewi de dox na bay bëgg a dee te nee na fi mu taxaw jógewu fi moo tax mag ñi baaxal ne ba jamonoy baax góor mooy fekk si jigéen mais léegi da ngay toog allo boy ah, waaye eh, mais maa ngi gàlle ah jeex na pare nga dem jaaxaar sa kaw lool di xaar quelques minutes ku jigéen ki yëg koŋ-koŋ aywa hmm? waaw mais éducation bi moom manqué nan ko waxta nangu ko nan ko nangu nin war a yare suñ doom yi moom manqué ci ñun genn wàllu parents yëpp danoo dégagé seen responsabilité yi moo tax xale yi mel nin mel loolu rek la mais koo ci taxal waxtaan ak moom dëgg xamal ko mooy kan fan la jógee lan mooy mission sur terre bu fi jógee fan la jëm lu tax yàlla bind ko xale boo ko dugal ci boppam du tal caaxaan du tal caaxaan xale dang koy teel a defar li ne bant ca tooy tooy ba nga koy jeex na <laughs> jeex na jeex na bu xasee wow sayee bu xasee wow sayee mais boo amee papa joo xam ne ta tanewula ci faatiha ndax am na suñu benn góor goo xam ne dama ko ree ba sonn ndeysaan paa bi dem na ba kala gi weex tàll nekk paa mënut a jàng faatiha buñ ko mosaa jiital xam nga lu muy nangu tisbaar tàkkusaan moom d'accord na dina jiite waaye weesu ah ah ñu dem benn eh, événement timis jot rek ñu ne ko eh, eh, mu xam ne dañ koy woo timis bu mu jiite mu jël satala gi jubal ci dus bi waa ana góor mu ne oh, oh, oh, bu leen ma xaar <laughs> ah ñuy jiital keneen mu julli mais na nag ba mu pare xelam yedd ko mu ne man en tant que ma gëm doy ne man faatixatul kitaab mokk lu ma ko jaaluwul waaye day jiite ma ne la xam nga lu muy wax allahu akbar yàlla ñu ngi jégal de yow yaa yàlla baal ñu yàlla baal ñu allahu akbar neen loolu laa jullee waaw ba mu jegee foofu ne ci natt boobu mu engagé oustaz oustaz bi jàngal ko faatix bu leer nañ tagal ko ci falax naas ba mu yéeg ba xaw a jege am ma xelam doog a dal waaw temps yi passe damay seetaan dama dal ci benn vidéo bu Sanex moom itam jarbaat bi ne ko mokkaloo Fatiha ndeka Fatiha Sanex mokkalul Fatiha mais da ci dawal stratégie waaw dafa jëg rek ne day génn kër mu ne day génn kër gi parce que jarbaatam moo ne mokkalul Fatiha ñu ne ko waa mu ne ko ku jigéen ki yow da nga di yàlla mu ne ko déedéet mu ne ko da nga di ko déedéet mu ko da nga di maam jaara mu ne ko déedéet da nga di faawaa diwale mu ne ko déedéet mu ne ko du ma jàng sa kanam ne ko góor ki yow wàllu yu nga mu ko déedéet yàlla da laa yónni mu ko déedéet ma kon dama ko jàng sa kanam da ngeen dem jëli imaam la tànk ñuy wari imaam saa neex de seet benn xale ci sëtam moo mu ko Fatiha ba mu mémoriser ko ñu ñëw toog jarbaab bi mi ngi ni waxoon naa leen ko mokkalul Fatiha imaam bi na ko ah man de xam naa ne saa neex ku sell la njort naa ne mokkal na Fatiha jarbaab na mokkalu ko na tari saa neex commencé a'uuzu billahi mina shaytaani rajim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 fatiha boobu la ne képp ku mu nekk sa dënn mën nañ am yaakaar gëm ne aljala nga jëm ndax Seydi Hadj Malick si nee na soo bëggee wàccoog yàlla nee ko rek iyyaka na'budu wa na nasta'in yàlla yow la ñuy jaamu te yow la ñu ci yow la ñu wéeru jeex na point jeex na wàccoo nga moom mais par wóllëre ni ma ko waxee jeudi passé wóllëre moo tax yàlla ne la chaque jour Waktu yu juróom ñu jakarlo ma yow audience nga ñaan ma loolu ma may la ëlëk bo ñëwé ma téral la loolu ko gëna a neex aywa dellu si waat ñëw ñibi ndax mi ngi bëgg a guddi damay bañ suma paré ñu di mo wo téléphone dama bëgg mu leer naa bu ma fi jëgé ki ma yaaw dalailul khairat ki nga xamne dafa bëgg yalla wërsegal ko alal mo xam nag alal yu mu mënti doon te dañuy wax ne jullit bi dara jomb ko waaye bu mel ni xaaroon bu mel ni xaaroon ndax xaaroon yàlla da ko may mu beew mujj dem allié ak Firawna weddi Moussa te pourtant tur yàlla ba mu liggéey ba am ci milliards yooyu Moussa moo ko ko jox te Moussa liggéeyu ko moo tax des fois la nit ki jox luy maye alal nga ne naa xool waa lu muy sol ndax am na alalam déet déedéet waa ji mën mën na ko xam te intéressé wu ko waaw mën na ko xam te intéressé wu ko su boobaa man na la ko jox yow mi ko bëgg asu mooy woote waat ne ko dama may rek ba ci kanam ay côté vingt deux heures waaw euh, waa ji mën na la jox secret bi te alors que amaana peut-être xaalis boobu intéressé wu ko wala boo ko intéressé tamit yow li nga ci bëgg moom bëgg ko ci parce que am na ñoo xam ne am na lu leen gënal fuuf valeur matérielle waaw valeur humaine valeur humaine humaine bi ñuy wax humaine valeur humaine am na ñoo xam ne moo leen gënal valeur matériel ndax dégg naa Cheikh Ahmadou Bamba Mbàkke ci dundam mu sosol yëre bu am poos biñ ko ko laajee mu ne pour lan da ci def ay weñ lu ma koy doy waaw kooku xam na valeur am perkaal la daa sol malikaan Cheikh euh, Cheikh El Hadji Malick même chose ñoom ñëpp bi ñu génne àdduna bàyyi wuñ fi benn dërëm bu leen mën a doon ne bàyyi wuñ ko fi te léegi seen ginnaaw macha allah barke baa ngi nii seeni bàmmeel ñoo yor seeni kër valeur humaine la koy may mais bu fekkee gëmoo valeur humaine nag nga topp valeur matériel iPhone bu trois cent cinquante mille sept cent mille quatre quatre Tucson la xaw ma ah euh, immeuble cinq étages ñaari soxna ñetti soxna waaw da xëy dee ñu noo ko sa ginnaaw mënoo ci dara am na ñoo xam ne valeur humaine bi xam seen borom egg seen borom moo leen gënal moo tax bul ne waa jox na lu am xaalis rek nga xool ndax moom lan lu muy sol. ndax mi ngi sol gasner wala mi ngi sol li may sol nii <laughs> waaw mais nag man tamit maa ngi sant yàlla fa lilahi alhamdu waaw aywa guddi gu ginnaaw gee astaghfirullah san allahumma salli alal mawsuufi bil karami wal juudi un soixante mille mille huit cent soixante onze mooy jàpp boo jëlee allahuma salli alal mawsuufi bil karami wal juudi moo jox nga yokk ci rafiu darajaati 999 mu jox la 1871 moom ngay liggéey fii ah ajib li yaa maxa ya maa iilu téeméer yaa fattaahu yaa razaqu yaa kaafi yaa xani yaa wahaabu yaa zat tawli 131 fois hmm? allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammadin wa sallim 313 mooy adadu huwa allahul hayyul qayyum ajib lii fii kulli makaanin cent soo ko mënee baada kulli salaatul isha nga zikar ko sax ci bañ koo bàyyi ci kàttanu yàlla bal bi tàkk na macha allah bindal lii bisu alxemes ki bëgg yàlla may ko soxna wala ki bëgg yàlla may ko jëkkër alam na sarax juróom ñaar yoon wa lin nazirin juróom ñaar yoon qaala Muusaa maa itum bi sihru ba ci walaw karihal mujrimuna set wa azin fi nas bil hajj ba ci set nga teg ci ñaan gi bu def góor la fulan ngay def fulan bintu fulanatin bu dee jigéen ngi ni fulaanatin bintu fulaana mooy turu ku jigéen ki fii bu dee jigéen la fi ngay def turam lii moom du changé sinon bu dee jigéen lii du changé bu dee góor lii day changé ibnu lay doon comme nga def tey Xasan Jaañ ibnu indi turu yaay ah, noonu lay doon kon donc ibnu bu dee góor ibnu la bu dee jigéen bintu bi xaqi xulonse bi falaqi salaay salaam nee na xulonse bi falaqi xulonse naa si gisu ko lu ko gën a gaaw ci faj aajo gisu ko lu ko gën a gaaw lu ko gën a baax ci muslaay ñun nag boo ko joxee nit ñu xeeb ko waaw falaxe ak naas mais bii falaxe rek nga indi wa bi jaahi saydina muhammad sallallahu alayhi wa nga teg kayit bi noonu tiim ko nga jàng ci ayyuhal lazina amanu laa takunu kal lazina azaw muusa fa barra'ahu llahu mimma qaalu wa kaana inda allahi wajihan def naa am ci suuratu ahzab aaye soixante soixante huit soixante neuf côté yooyu doo ko fa wéree di nga ko fa gis surtout azab nga jàng ko ci kaw kayit bi quarante cinq fois nga lem ko mu def ko téere bu dee jigéen bu ko neexee bu ko nangoo mën na ko def téere bopp bu amee complexe téere bopp na ko def téere ndigg incha allah bu dee góor tamit téere ndigg wala téere loxo ndeyjoor incha allah rabbi bu ko jigee balaa quarante jours yi mat maa ngi yóbbaale micro jàmbur aywa salaamaaleykum wa rahmatullah hmm. ah, alwara